auzu sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñi ngi amaat mbégte di leen dalal ci seen émission balance bi nga xamante ne tey jii mooy euh, juróom-benneelu numéro bi euh, fa yéene waxtaane beneen euh, sujet boo xamante ne dafa soxal askan wi yëpp alors mu mel nii seen émission balance na comme ni ngeen ko baaxoo di àndeek ñun mardi bu jot ci waxtu wile saa su nekk rek dañuy tànn benn waxtaan boo xamante ne xew na ci wàllum yoon maanaam wàllum justice ak wàllum droit su ko defee kon ñi nga xamante ne ñoom ñooy askan wi xam bu baax a baax yéen jàngale lañ ci mën a jëlee waaye tamit képp koo xamante ne amoon nga benn jafe-jafe ak yoon wala nga am benn gàllankoor wala nga am lépp loo xamante ne da nga ci soxla ñu jubbanti la teg la ci yoon loolu mooy li nga xamante ni moom moo waral a jotaay bilee kon suñu jotaayu tey bii nii dañ koy jagle li nga xamante ni moom la ñu tuddee droit bancaire maanaam Euh, lépp loo xamante ne mi ngi xew ci wàllum banque yi ndax dafa nekk ay mbir yoo xamante ne soxal na askan wi lool lool lool sollicitation yi bëri ci ñenn ñi jafe-jafe yi ñu ci am bari lool lool lool lool te parents saay sax duñ xam ban yoon lañ mën a jaar pour maanaam seen euh, saafara euh, seen jafe-jafe yoo mën a am ay saafara alors looloo waraloon tey jii nii ñu tànn ko waxtaane ko waaye tamit ci biir jotaay bi dinañu seetaan benn reportage boo xamante ne ànd nañoo askan wi dem tàllal leen suñu micro ñu xamal lu yan jafe-jafe la ñu am si digganteeg seen banque yi waaye tamit di laaj ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, màcc ci wàllub yoon ban yoon lañ mën a jaar pour seen jafe-jafe yooyu ñu am di mën a mën a saafaraw yaakaar na ni bu ñu yeggee ci jotaay bi loolu lépp dinañ ko leeral al mu mel ni comme ni ñu ko defee di baaxoo di def saa su nekk rek sujet bu ñu tànn di ko waxtaanee dañ fiy dalal kàngam boo xamante daf ci màcc mu mën a indi ay tontu ci laaj yi nga xamante ne fas yéene nañ ko laaj waaye tamit bépp gind boo xamante ne war na digganteem ak askan wi mu nekk loo xamante ne daf ko fiy def kon ki nga xamante ne moom la ñu dalal tey du kenn ku dul Famara Ibrahima Cissé bi nga xam ne euh, moom mooy président ACSIF ACSIF mooy euh, kuréel gi nga xamante ne moom moo ëpp mboolem ñi xamante ne ñoom ñooy client banque yi ñu koy wax euh, association ACSIF kon su ko defee kon ñu ngi lay bàyyi kàddu yi nga nuyoo maa ngi lay gërëm di la sant euh, di gërëm euh, membre actif yëpp tàmbalee ko ci bureau bi di gërëm téléspectateur Walfadjri yi di gërëm techniciens yi nga xam ne tey ñoo jàpp ci émission bi ndax mu mën a réussir di gërëm it te euh, képp koo xam ne client nga nekk ci banque wala sociétaire nga nga nekk ci institution financière di gërëm samay mbokk samay soxla yi nekk euh, madame Diouf bi nekk euh, Thiès sama soxla yi nekk Tivaouane ñi nekk Ziguinchor ak ñëpp ñi nga xam ne daal tey euh, di yaakaar ni tey émission bi danañ ci jëlee jàngat danañ ci jëlee njëriñ joo xam ne danañ leen jàppale bu baax a baax baax ci tolof tolof ñuy dund ci biir banque yi ak institution de microfinance yi. Mhm. waaw jërëjëf Ibrahima euh, client yooyu nga wax sax ak ñi nga xamante ñoom ñooy sociétaire institution financière yi ñoom ñooy gën a tax a waral sax ñu choisir thème bi ndaxte sollicitation yi bëri nañ trop ak tamit li nga xamante ni moom mooy suggestion yi recommandation yi ak tamit critiques yi nga xamante ne le plus souvent dañ koy formuler euh, ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy institution financière yi euh, kon si biir jotaay bi yaakaar naan loolu yëpp dinañ ci ñëw faram-fàcce ko benn par benn waaye tamit mel ni am nañ fi public bu takk boo xamante ni ñoom tamit teew nañ fi kon buñ ca yeggee rek kenn ku ci nekk dinañu ci jël kàddu ñu nekk ñu uute am na ci ñoo xam ne membre actif lañ am ne yeneen organisation lañ fiy représenté lu mel ni ligue des consommateurs ak ñeneen ak yoo xamante ne euh, teew nañ ci jotaay bi euh, balaa ñu sóobu ci jotaay bi dañuy ànd ak waa régie seetaan benn reportage boo xamante ne dañ ko defoon sur le terrain euh, laaj askan wi li nga xamante ne ñoom gis-gis bi ñu am ci banques yi ni ñu doxee Sénégal ak tamit lan mooy li nga xamante ne jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñu seetlu ne moom la ñuy faral di jànkonteel donc si l'élément est en place régie ñu ko avant ñu ñëwaat ci plateau bi génn légitime défense parce que tey boo xoolee yaakaar naa ne Barthélemy Diaz mu ngi woon ci commune bu Sacré-Cœur Mermoz yaakaar naa bu ñu ko fekkewul fekkul kon foofu kon yaakaar naa du riposte ba li am aperçu bi ma ci am mooy banque yi ma jot a dem yëpp ñu lay wax avant ngay dugg ak li ngay gis c'est diamétralement opposé bon ce qui pousse la majeure partie des Sénégalais à dire que ni yi dañuy utiliser nit ñi dañuy nax te man loolu laa gëm parce que tey jii da ngay ñëw toog ak ñoom ils font tout pour yow ñu indi la ci ñoom mais boo xasee ba dugg mën naa ni pare nañ ci yow te boo demee bay génnaat tamit dañuy ñëw di la teg ay taxes yoo xam ne pratiquement li nga fa amoon lépp dafay des kon je pense que nii war nañu toog ak sénégalais yi ñu wax leen carrément ne leen nii la ñuy fonctionner nii ak nii la moo gën ñu ñuy wax gëmal loo xam ni amul en quelque sorte. man jotoon naa nekk ci benn banque de la place mais bi ma fa nekkee ñuy dem bu ma dikkee liñ may dagg day bari mais après un mois donné je me suis dit que ni man damay changer mais changement bi ma doon changer rek pour dem ci beneen banque ça m'a coûté plus cher même parce que je que ni jaru ko ba avant may jóge foofu. j'avais de l'argent mais avant may jóge foofu di dem ci beneen banque bi mën naa ni lépp bàyyi naa ko fa ci ay taxes yu ñu lay wax ay dañ lay dagg lii dañ lay dagg dañoo dem ba benn sant pour ñu jox ma kayit bi may dem di déposer fële c'était tout un problème. may wax clients yi mooy comme mënuñu koo bañ a def mënuñoo bañ a dem ñu fexe ba bala ñoo dem ñu am kayit yu leer ñu xam ni ñii kat fonctionnement bi nii ak nii la su ma ciy dugg lii mooy garantie bi su may génn tamit conditions yi lii nii lay demee je pense que ni daal loolu moo gën mu suñu bopp bala ñoo dugg. que ñu dugg ba pare di ci am ay problème non man je dis que ni mooy banques yi ak service de transfert yu ndaw yeeg ñoom ñëpp noonu la parce que tamit seen intérêt la ñuy jiital dañuy wax ni dañuy jàppale nit ñi mais à vrai seen intérêt la ñuy jiital ñoom li ñuy am mooy bénéfice bi ñu ciy am xam nañ ni tamit c'est normal ngay liggéey di dencal nit ki am nga loo ci war a mën a am mais dafa ëpp en quelque sorte te du ñu wax nit ñi dëgg duñu wax nit ñi dëgg au départ mbir mi dafa am arnaque dafa dafa leer parce que tamit avant ngay dugg dañ lay wax lu nekk te mënuñu si dara boo xasee ba dugg dañ lay manipuler nu mu leen neexee ce qui pousse beaucoup de gens à quitter parce que tamit riba la xaalisu jàmbur nga jël ko tëdd ci jaay ko doole par force te am na ñoo xam tamit somme bi ñu fay bàyyi du leen jaral ñu fi nekk di yéeg ak a wàcc parce que xam nañ bu ñu fi nekkee di yéeg ak a wàcc dañ ciy dépensé loo xam ni nekkul woon foofu nekkul woon ci seen compte kon du leen jaral loolu fait euh, banque yi li ma ko gisee pour man seen taxes yi dafa cher quoi ñuy fayaloon nit ñi dafa bëri en plus euh, seen délai dafa rapproché boo fayul après dañ lay yóbbu pëlit après deme noonu te des fois dañ ay cas d'arnaque ainsi de suite même ñun suñu cas étudiants yi des fois retard day am ak Ecobank affaire demee noonu jusqu'à présent fay luñ suñu bourse affaire demee noonu suñu banque suñu fo ma daal ñu demee te gars yi war nañoo wàññi daal seen taxes yi vraiment ndax au moins lu ñu lay aussi mu dekk la xam li bëri dosing pay bi mu xaw a mu xaw d'abord de un j'aime le fonctionnement des banques et les fonctionnements dans tous les coups au Sénégal parce que de un d'abord le fonctionnement des banques au Sénégal c'est des fois pire par rapport aux pays de l'Afrique comme par exemple je peux dire je peux dire en Afrique centrale par exemple parce qu'ici au Sénégal c'est trop facile d'avoir un compte bancaire il facilite la plupart tous les étudiants, avec n'importe quelle somme, vous ouvrez votre compte, vous pouvez ménager votre argent. Et aussi, ce que j'aime avec le fonctionnement, c'est l'accueil. Parce que quand vous partez dans une banque sénégalaise, et ils respectent ce qu'ils disent que non, le client est un roi. moi aussi, je peux pas dire que c'est OK à 100%. Je me plains par exemple euh, dans différents secteurs. Parfois, vous voulez retirer de l'argent, Mais aussi, il y a une chose à certains, à certains guichets, vous arrivez, vous allez faire peut-être 30 minutes, vous faites une opération simplement pour prendre peut-être 30 000 Alors que simplement, c'est pour cela. La plupart des gens comme nous, on peut faire migrer à les différents services téléphoniques a pour les prépayer, parce que les banques doivent augmenter le nombre de succursales et doivent aussi perfectionner leur réseau en cas de retrait d'argent et n'importe quelle que vous voulez faire. Pour l'arnaque aussi, peut-être entre les clients et les gens qui travaillent à la banque, ils n'arrivent pas s'accorder le de signer les contrats. Parce qu'il y a certaines banques vous disent, par exemple, vous avez un pourcentage de 3,5% de votre budget par année. Mais a certains gens qui savent pas les calculer. Il y a des gens qui ont beaucoup de sommes d'argent dans les banques qui peuvent pas les retirer contrats qu'ils ont la banque. En recommandation pour moi, la, Parce que c'est la banque, c'est comme un commerce. Personne n'investit pas pour perdre. Donc ce qui veut dire, c'est vous partez à la banque, ils vous montrer tout en bleu. Mais si vous regardez bien, il a certaines tâches qu'ils ne vous montrer. Un client peut se dans une banque, mais vous pouvez pas poursuivre une banque en justice. Parce que d'abord, pour poursuivre une banque en justice, il y a une procédure qu'il faut suivre. Il a le parcours, la banque, il faut aller voir veuillez bien, ça à la banque. Donc c'est un processus qui, vous-même, en tant que client, vous, vous fatiguez. Et aussi, il y a une autre chose aussi. Ce n'est pas n'importe quel client qui peut aller porter plainte à la banque. Parce qu'il y a des gens qui sont à la banque, des gens qui ont des actions dans la banque. Si vous avez au moins ou 50% dans la banque, la banque ne peut pas rigoler avec vous. N'importe quelle chose que vous voulez, la banque Parce que vous êtes une client. Mais Je peux Parce que c'est comme les banques. Imaginez, la Banque centrale. La Banque centrale qui gère tout le budget du pays. Donc, la Banque centrale le gouvernement travaillent presque forcément liés. Ils sont forcément liés. Oh, les banques ne sont pas au-dessus des mais le gouvernement, certains le savent. Donc, la, banque comme en appliquant n'importe quelle autre entreprise. Si pays fonctionne correctement, c'est que les banques qui sont dans ce pays sont vraiment opérationnelles jërëjëf waa régie président yaakaar naa ni dégg nga intervention yi nga xamante ne jóge nañ ci ci population bi euh, d'une manière générale ban commentaire na ci def. waaw euh, commentaire bu ma ci am mooy euh, ñëpp bokk gis-gis ci problème bi li ma ci noté mooy bu njëkk bi mooy désinformation mhm. daanaka banque yi nekkuñu di wax dëgg clientèle bi de sorte que boo fa duggee dem ba ci biir ay jafe-jafe rek la lay jural muy question désinformation. beneen bi mooy taux d'intérêt comme olof la ñuy wax nañ ko tudd muy riba bi nee nañ bëri na te muy dëgg convention bi mooy contrat de prêt bi wax nañ ko tamit jub na ci wax ci nee nañ contrat bi duñ la may temps nga ko te contrat bi dafa am ay jafe-jafe yu nekk ci biir boobu tamit euh, noté ci biir bu génn sa banque dugg beneen banque boobu tamit gis naa ni évoqué nañ ko question boobu muy problème bu tar boo xam ne clients yi dañ koy dund te yaakaar naa ni point yooyu yëpp mhm. il faut que ñu wax ci beneen bi mooy bancarisation bi il faut que ñu faram-fàcce ko xamal sénégalais yi lan mooy bancarisation kañ lañ jël mesure bi ñan ñoo ko jël kañ la ko Sénégal commencé appliquer da cee am solo est-ce que bancarisation bi ni ñuy tey ñu ngi ciy gis seen bopp wala nekkuñu gis seen bopp beneen bi mooy compte épargne bu ñuy wax benn waaye wax na ko fi compte ba ngay am dénk ko banque bi pour mu dencal la fa sa compte boobu nan la war a mën a tëddee hmm. est-ce que banque bi da cee war a jël intérêt wala waru cee jël intérêt beneen bi mooy wax na tamit étudiant bi muy question Ecobank bi nga xam ne étudiant yëpp tey Sénégal fa lañ leen dëxëñ nga gis seen bourse yi ñu ko fay jël rang bu métti bu ñu jël muy muy muy remettre en cause gab yi ñi am tey moo tax dama yaakaar di question yi laal nañ hmm. góom gi bu dee mën nañ ko tuddee noonu te jàpp naa ni ay problèmes yoo xam ne war nañ ci mën a ñëw benn par benn toj ko Sénégalais yi xam nan la tëddee. Mm-hmm. ok bu ñu ko tàmbalee li fi nga xamante ni foofu nga njëkkee muy wàllum euh, information parce que tamit droit a l' information dafa am maanaam client bi nga xamante ni dem na benn banque ba nekk fa euh, day jaadu ñu koy xamal lépp loo xamante jëm na ci wàllum banque boobu noonu est ce que loolu banque bi daf ko war a fayee ko client bi muy SMS yi ngay jot ak yu mel noonu par exemple sax du doo jot euh, message boo xamante te dañ ne yii à partir du premier octobre kenn waratu ko fay mu bokk ci le droit à l'information qui est consacré dans notre constitution suñu charte réew dañ ne information droit la boo xam ne kenn waru ko négocier te information boobu jox ko client bi dafa war pour que moom mu xam ni banque bi di tëddee mais malheureusement li ñuy gis mooy tey xëccoo bu fi am ci diggante banque yi parce que at bu de banque bu bees taxaw ci dëkk bi ñu ngi ci ñaar fukk ñeenti banque ñetti établissement financier à caractère bancaire plus de trois cent soixante microfinance mënu ma la wax lim bi ñaata mooy mutuelle yi nekk ci bopp koñ bi di dóor ay dóor yu métti clients information bi nga xam ne client da ko war a mën a jot malheureusement duñ ko ko joxee noonu da ñëw ñu lay baab di la wax la neex di la raay ba nga dugg bi ci biir am ay jafe-jafe yu métti duñ la wax contrat bi nu mu tëddee dañ la wax riba bi nan la tëddee yow daal ñëwal ñu ubbil la compte gratuitement alors que dañ la war a jox information bu wér SMS yi nga tudd ak mail yi fukki poj juróom-ñeent yi banque centrale génn nee na yooyu dafa war a gratuite kenn waru ko fay mais gis nañ banques yi nii message yaa bu ñuy envoyé nit ñi huit cent francs lañ la koy dagg xam nga ne loolu caar sàcc la te penn saa yi dañ la koy dagg te doo jot message tamit doo jot message waxtaan nañ ceeg benn euh, directeur général banque ñu toog ma ne ko yow say client ñaari weer ñoom ñëpp nee nañ jotuñu message te constaté nañ seen relevé de compte dagg nañ lañ ko waa lu ciy pexe mu ne ma waaw euh, intermédiaire bi nekkoon seen diggante client bi doon envoyé message yi ñoom nangu nañ ni foofu dafa am ay problème moo tax client yi jotuñu ma ne ko waaw waaye léegi xaalis ba nga leen dagg waaw boobu nan lay demee hmm. mu ne ah boobu moom dagg nañ leen ko ba pare euh, remboursement moom xalaatuñu ko. mënatuñu client bi amul benn recours bu mu mën a def pour jotaat ci xaalis boobu daal. waaw ma ne ko nag loolu sàcc la comme que service bi sagam service bi client bi fay na ko jotu ko li war mooy delloo ko xaalisam te loolu ngeen war a def te moom mooy yoon mais malheureusement lank na suuf nee na intermédiaire bee paan léegi nag moom client bi moom mooy euh, gàddu lépp xam nga. Euh, am na benn borom xam-xam bu mag bu ñuy wax Jean-Jacques Rousseau dafa wax dans le contrat social mu ne je fais avec toi une convention un contrat tout à ta charge tout à mon profit que je respecterai tant qu'il me plaira et que tu respecteras tant qu'il me plaira nee na maak yow banque loolu fa xew dañuy def benn këyit boo xam ne lépp loo xam ne dafa diis te métti yow yaa koy gàddu lépp loo xam ne dafa neex te oyof man maa koy gàddu te dama koy respecté man ba saa su ma soobee ba ma neexee yow te danga koy respecté ba saa man su ma soobee donc dafa mel ni euh, nga jël benn pièce banque bi da koy tëbal ci kaw ne la pile nga ne ko waaw mu ne la je gagne face nga ne ko waaw mu ne la tu perds donc dans tous les cas banque bi mooy gagné Mm-hmm. donc suñu convention yi c'est des conventions léonines teguwul ci yoon mm-hmm. banque bi rek moo ci gis njëriñam te da lay ndax du la wax liñ doxañ ci biir mm-hmm. yow nga jàpp ni euh, li mu la wax moom moo doxuñu ci biir a jàngoo wala boo jàngee sa cursus amul éducation financière danañ ci dellu si de sorte ko yow ay tolof tolof rek ngay dund mhm. ay tolof tolof rek contrat boobu xam naa comme junj nga ko dañ ciy xuusandi rek euh, contrat de prêt yi nga xamante ne par exemple client bi daf koy signé ak banque yi est ce que moom client bi si boppam am na avantage yu mu ciy bañ benn duñ la may fa nga yóbboo contrat bi sa kër ñaar duñ la may fa nga ko liiree waaw parce que bu dee xamoo li ci nekk yoon may na la nga dem ci avocat mu liiree la expliqué la ndax war nga ko signé wala déet normalement technicien mu xoolal xam nga tey bu ñu bëggee lu jub banque yi dañ waxante dëgg convention baa ngi nii balaa ñu koo signé client bi nee leen may leen ma ma liir nañ ko jox mu yóbbu këram mu tëdd xool waaw bu xoolee doyu ko mu woo benn technicien benn expert mu xoolal ko bu d'accordee mu signé bu d'accordul nag mu ni d'accorduma mais loolu amu fi dañuy jouer sa conscience xam nga waaw dinañ la jox prêt nga préparer sa projet yàqam ci mbir mi ñu naan la tey suba tey suba dem ba mu wóor yow fi mu nekk di luñ la tegal nga signé joué sa conscience ba nga xam ne lu ñu gis ñu ñëw ne la waa kaay kaay luy approuvé luy approuvé nga signé loolu du yoon en France en Allemagne dañoo voté benn loi bu ñu wax la loi sur le délai de rétractation moo may képp client ba ñu pamti pamti noonu ba mu signé convention boobu mu am fukki fan ak juróom yoo xam ne parce que boo signé convention bu dinañ la ko jox ba téye mm-hmm. bañ la ko joxee boo demee say kër nga xool sa avocat xool sa juriste xool sa technicien boo xam ne expert financier mu ne la lii nga signé kat musiba la ci yow am nga droit yoon may na la nga dem nga dénoncer contrat bi ne d'accord mais fii Sénégal boo xasee ba signé même boo jotagul xaalis commencé ngaa fay intérêt mooy musiba. Mm. même boo jotagul xaalis ba yow déjà débuté nañ sa compte commencé ngaa fay ay pénalité moo tax loi boobu dañ ko war a voter Sénégal ñun nag. Mm. tëgg nañ loi ba mu baax ak yeneen loi yoo xam ne dinañ ci dellu si pour que mhm. assemblée nationale dimbali ñu si dimbali clients yi ñu voté ko mhm. mais Sénégal il faut que ñu am xel xam ne ñun amuñu ay député wax dëgg yàlla xuloo xeex assemblée nationale. parce que man loolu jaaxal na ma tuuti député yi. mosu dégg di leen dégg ñuy wax ci plusieurs problèmes mais rarement nga ciy dégg wala boog néew na loo gis député interpellé ñi nga xamante a interpellé par rapport ak li nga ñëpp xam nañ ni système bancaire bi ni muy doxee baaxul nii ñu ngi ciy am ay jafe-jafe yu métti taxaw jàkkaarloog ministre de l'économie et des finances xamal ko ni banques yi ñu ngi toroxal askan bi amul li ko waral nag bëri na te xam naa dinañ ci ñëwaat. Mm-hmm. waaw Pape Ndiaye benn am Sénégal man compte benn compte am Sénégal waaye am na ñoo xam ne soit question bi dana na intéressé wul wala touché wu leen parce que ñu ci bëri tey bu ñu wari seen compte ci yeneen dëkk yi dañ koy wëri mm. te yeneen dëkk yi loolu amu fa. ay loi sur le délai de rétractation la ñuy voté absolument yenn pénalité yi kenn du leen ko teg riba bi nekkul ay quatorze pour cent quinze pour cent yenn saa yi mu jéggi ko ñu ngi fi taux effectif global Pam Ndiaye contrat boo ko tënkee ak nit mu ngay yow ak gis naa la nga def fi benn émission ci locataire rek yooyu yow ak sa euh, locataire nga moom sa kër loué ko mm-hmm. tëgg contrat ak nit contrat boobu bu naree changé virgule da nga di toog xaatim ko waxtaan ci ba juboo waaye banque rek mooy def saa su ne contrat bu mu signé client bi mu xëy yokk ko te dara du ci jub la preuve agio yi ngeen di am chaque fois ngeen dégg at bu dem ngeen dégg yokk na bañ nañ ko ba léegi mhm. taux variable la ñu appliqué dañuy ñëw ne la taux bi appliqué lañ la 14 pour cent déwén boo ñëwee mu nekk quinze pour cent beneen at bi ñu yokkaat ci leneen ak leneen ak leneen mais loolu fan lañ ko teg. te loolu ñu appliqué dëppoo wuñ ak li nga xamante moom ngeen d' accord ba signé ko. la ngeen xaatim boo xam ne contrat bu nga xam ne yéen a accord ba signé ko amana ah yow xooloo ko sax dañ laa forcé de la luy approuvé yow saa yoo ko jalgatee banque bu teg la ay daan yu teg la ay pénalité xam nga banque il foog ñu wax wax ko ci ñetti mbir lay amee xaalis mooy lan bu ci njëkk mooy riba ba mooy taux d' intérêt bi ñu koy wax waaye riba ba mm-hmm. ñaareel bi mooy service yi mu lay jaay ci biir banque bi mooy daanaka nga euh, bëgg attestation d'engagement wala non engagement relevé de compte yi banque centrale ne dafa war a gratuit ñoom ñu koy continuer di ko jaay nit ñi SMS yeeg nga xam ne dañoo ne gratuit di continuer di ko jaay nit ak beneen bi mooy défaut de paiement mm-hmm. mais défaut de paiement boobu tamit nañ ci wax Pape Ndiaye amel naa la xaalis war naa la fay la cinq bu ma ñëwee le six boo ma tegee ay daan naa xam ni maa tooñ waaye ma ñëwee le premier di la fay waaye waroo ma teg daan logiquement musiba naaru laay tey nga am prêt ci banque xëy benn bis nga amel ko ay millions yu bëri xëy benn bis dajale millions yi ñëw gàddu sa saak ne ko dama lay fay mu ne la teel a fay baaxul dama lay teg ay daan yu métti dix pour cent de l'encours am na ñoo xam ne sax dañ leen intérêt yi nga xam ne waroon nga ko fay fii ak vingt ans mhm. dañ koy dajale nga fay ko teel a fay baaxut waaw loolu ban système la ñun ñu koy dund ok suñu autorités yi toog duñu seetaan ok euh, d' accord ci biir reportage bi ñu seetaan am na koo xamante question bu mu doon soulever mooy certificat d' attestation non engagement bi nga xamante ne yaa ngi ko doon tudd léegi maanaam nga jóge benn banque war a dem feneen ñu war la jox kayit boo xamante ne day wane ni euh, maanaam yoreloo fee dara loolu tamit naka la ko yoon tëggee ak tamit yan yan yan démarche moo ci war a am a fay wala nu mu war xam nga benn banque dafa taxaw loolu ñu yóbbu kaso dafa taxaw de képp kuy génne ci si banque bi da ngay fay cent soixante quinze mille cinq cent pour rek ñu jox la këyit buy wane ni yoreloo banque bi dara ñaari këyit la bu ci njëkk mooy banque ba dana naan fayal attestation d'engagement mooy li nga ma amel nangam nga ma amel dafa mel ni nga amel sa boutique bi bon weer bi dee nga dem ne ko ñaata laa la mu ne loolu dañ koy def ci këyit te danga koy fay nga ne ko ñaata mu ne beneen bi mooy attestation non engagement boo ko fayee këyit boobu fay ko lépp mu ne la léegi reçu bi ba nga xam ne mooy wane ne fayee nga boobu tam da nga koy fay ci banque ba 87 750 ñaar yi mooy 175 500 waaw ñu bu ñu jotee information boobu ñu provoqué rencontre directeur général tubaab ba moom banque ba comme ñun ay jaam lañ ñoom ñooñu ñoom ñooñu kii parce que prison la ca banque ba hmm. mënatoo génn dafa jël buum rek takk ko suñu suñu ji suñu suñu baat bi ma ne ko yow jàkkaarloo boobu ne ko yow lii nga ñu teg bëgg ko teg sénégalais ci koo xam ne dafa bëgg bàyyi bàyyi naa rek nga ne ko day fay cent soixante quinze mille cinq cent est ko def sa dëkk mu ne ma xalaatu ko parce que dëkkam du exemple ma ne ko li nga bëgg ñu ko teg ñun <laughs> mu ne ñu banque centrale moo leen ko may bu ko neexoon def ko cinq cent mille wala fàq yatam taxaw ne kenn du génn kenn du génn hmm. ah ñu ne ko nag ñu la koy ñun bokku ci danañ organiser sitting fii hmm. bloqué locaux yi Sénégal yëpp xam dégguñu waaw ñu buñ demandé nag pour honnêteté la ñu bañal loolu jàpp ñu yóbbu ñu ci kaso bi bu ñu bravé ko jàpp ñu yóbbu ñu ci kaso bi mhm. ba tey ñu ngi koy appliqué Mhm. te maa ngi fàttaliku sax ci problème boobu noonu bi ngeen ñëwee ba tribunal procureur bi mu jëlee parole maa ngi fàttaliku ay kàddoom dafa ne association yu mel nii yéex naa am ci réew mi maanaam tellement loolu rek li muy wane mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy bëri eh, am jafe-jafe ci wàll gi dañoo bëri te parrainage du ñu xam eh, yoon bi nga xamante ni moom la ñuy jaar pour seen eh, jafe-jafe yoo mën a saafara ci biir reportage bi tam dégg nañ benn maanaam bu fekkente ni dafa am loo euh, yoreel banque bi war ko fay nga jég am gàllankoor ñu war laa mën a may ab diir boo xamante ne ci lay toog laata ñuy mën a saisir sa bien wala garantie boo fa boo fa ma gën ko yaatal sax muy béykat mu leb banque béy production bi yàqu muy commerçant ba mu leb banque tey ay këram mm-hmm. jënd marchandise marché ba tàkk waa kooku dañoo war a nangu këram génne ko ci biti toroxal ko France ak yeneen dëkk yi boo fa demee dafa am benn loi bu ñuy wax la loi sur le délai de grâce ñaari at dana ko toog du fay day placé wu la protection de la loi parce que c'est des lois protectrices des clients il faut mu am ci dëkk bi malheureusement c'est un vide juridique amul Sénégal waaw loi boobu warul protéger commerçant bi kooku dañoo war a nangu këram toroxal ko nangu euh, ba pare li ci gën a garaaw Pape Ndiaye xam nga li may wax mhm. dal na fi benn maire bu ñuy wax maire Sophie exemple am faral di joxe banque ba pamti pamti ko ba lebal ko benn quatorze millions sept cent mu waroon dem faju ji parce que yàgg na liggéey extérieur bu mu ñëwee euh, war a euh, am feebar wara a faju ji leb banque ba quatorze millions sept cent banque ba ne ko ngay tayle sa kër mu tayle benn kër goo xam ne expert bi moo ñëw xool kër gi nekk kër gi évalué expert banque ba mhm. cent quatre millions waaw maire bi am ay jafe-jafe ca fay bi parce que la ñu waxante woon ak li ñu dexoonoon ci biir contrat bi taxawu ci ñu ne ciix këram génne ko ci biti moom ak njabootam kër gi cent quatre millions la banque ba wax mhm. expert u banque ba wax loolu lay jar parce que valeur kër gi dépassé na li mu yoreel banque waaye ma ne banque ba quatorze millions sept ko mais bu ñuy jaay kër ga xam nga ñaar nañ ko jaayee mhm. vingt cinq millions waa kër goo xam ne banque ba ne na cent quatre millions lay jar banque ba moo ñëw évalué ko ne cent quatre millions waa bu ñu koy jaay war nañ ko jaayee vingt moo tax lu loi yi dañ ko xoolaat tey kër ga quatre deux euh, quatre appartements maris bi la nekk boo ko doon jaay cinq cent mille du taxaw cinq cent millions du taxaw mhm. maire bi noonu lañ ko toroxale nangu këram jaay ko vingt cinq millions euh, bazarde ko noonu mu ñàkk ak ay bokkam mhm. loolu saisie boobu dañ ko war a xoolaat beneen forme de saisie xam nga saisie surtout ci mutuel yi mhm. ñu ngi koy def ci anam bu doy waar barki démb Njaay maa ngi lijjanti problème bu mel noonu ci benn waay boo xam ne salarié la mu ñëw chef d'agence ba saisir salaire am ne ko yow doo fayeeku parce que dafa am ku mu garanti woon kooku gisuñu ko weer bi dee fayul ñu ne ko yow doo fayeeku nangu salaire am saisir ko xam nga loolu saisie la mm-hmm. te saisie foo ko déggee rek huissier ko war a def absolument ordonnance judiciaire présence huissier moo ko war a def soit muy saisie attribution wala saisi conservatoire saisie attribution mooy dañuy ñëw bu décision de justice bi génn banque jël avocat mu ñëw ñu jël ponctionné xaalis ci compte bi wala saisie conservatoire ñu bloqué salaire waa mhm. banque moom ban pouvoir la am ba teg yoon ci suuf teg magistrat suuf teg huissier suuf ne moom mooy dem saisir salaire bi mhm. wala nga koo xam ne dañuy ñëw tëj magasin am waaw da nga ñoo amal xaalis mhm. waaw ñoo sax dañuy bloqué seeni i compte également dañuy bloqué sa compte wala ñëw sa seen i carte yow ñëw wàccee sa magasin tëj kon yow yaa ngi yaa ngi dëggal ne banque amul droit dem saisir directement matérielu jàmbur wala bloqué compte jàmbur lu dul mu am këyit bu jógee ci tribunal ci yoon bu buy joxee digal boobu noonu këyit rek tribunal rek mooy tranché banque amul dogal boobu ku ñu bloqué sa salaire ca banque ba de porter plainte parce que seen responsabilité moo engagé wu parce que préjudice pour lourd la la causé est-ce que du tam ay mesures conservatoires yoo xam dañ koy jël en attendant tribunal di di tranché amuñu yoon mayu leen ko saisi waa saisi nag moom ko déggee rek jàppal lu huissier ko war a def waaye nit war na mën a ñëw dafa mel ni maag yow nga mel ma xaalis ma ñëw saisir say dàll taxaw boo ma yóbboo ci yoon damay daanu waruma fajal sama bopp yoon a ngi fi waaye ñoom comme faalewuñu yoon faalewuñu président de la république parce que ba ñu tëjee conseil des ministres président de la jël na dogal wax ak ne leen nañu arrêté les mesures anticoncurrentielles mais ba tey may wax yow ni faalewuñu ko ñu ngi continuer di appliquer seen i mesures donc la loi sur le délai de grâce beneen loi la boo xam ne vide juridique di fa am te dañ ko war a voter parce que nit ñi soxla nañ ko mhm. beneen loi bu ma la mën a wax tamit toujours ci domaine boobu mooy la loi sur le surendettement mhm. ci wolof mooy lan mooy daanaka bor bor bor ba amatoo bu dee salarié nga mënatoo jot salaire bu dee comme mënatoo dund ndax ay bor yu la topp waaw loolu war ñu ko de ci bor boobu ay banque banque banque jox la ay bor bor la ba nga xam ne xam nga c'est vrai que client bi am na ci responsabilité mais banque ba tamit am na ci responsabilité boo demee ci dëkk yële dafa am la loi sur le surendettement avec endettement parce que bu dee salarié nga yoon daf ko dafa xaaj salaire ñaari pàcc parce que salaire bi dafa am lu ñuy wax caractère alimentaire nit ki da ko war a jël dund ci pour mën a Euh, dundal boppam dundal njabootam mën a xëy moo tax loi bi protéger ko mu ne salaire dafa am pàcc boo xam ne kenn waru ko laal mooy deux tiers yi am pàcc boo xam ne nag mën nañ koo jël suñu charte réew ko wax hmm. waaw bu dee salairu cent cinquante mille nga am banque ba euh, loi bi nee na quarante cinq mille la wax warul ko banque bi waru ko jël mais banque boo demee cinquante mille la ñuy jël benn jalgati nañ yoon ñu naan détoit ñu dagg la agio dagg la commission dagg la frais forçat dagg la frais frais ba nga xam ne yow Euh, cinquante mille ngay desee waa cinquante mille nga war ci jot direction de la solde dagg wala beneen usurier taxaw fële dagg bu ko defee yow fin du mois dootoo daje dootoo laala ci dara mhm. waa loolu waruñu ko réglementer voter benn loi sur le surendettement avec une commission de surendettement buy doxal di mhm. dal ci kaw ñi nga xam ne dañuy surendetté di dal ci kaw même client bi nga xam ne moom moom moo dem surendetté boppam ok xam naa bu ñëwee ci solution yi dinañ ko gën a yaatal bu baax a baax euh, kon li ngeen fi dégg rek du leen lu dul day leeral rek maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo am jafe-jafe ak seen banque wala boog seen institution financière ñu gën a xam yoon bi nga xamante foofu la jaar pour maanaam mën a am saafara euh, leneen li nga xamante ne bëggoon naa ñu addu ci tam mooy wàllum guichet automatique de banque yi muy maanaam wàllum carte gap mm. a sonal nit ñi nag mooy panne am na moom seen guichet maanaam day day day day kii mais bu fekkente ni yeneen secteurs yi la parce que ay yor sa xaalis war ko jot mais doo ci mën a jot te même bu fekkente ni yor nga ko bénéficier wu ci avantage bi nga xamante ni moom moo war a tax moom moo taxoon ñu délivrer la ko terewul tamit ci suuf ñi ngi lay dagg tamit loolu ñi mu dal ban yoon lañ mën a jaar pour loolu saafara waaw xam nga gab yi dafa bëri problème xam nga dafa am benn banque boo xam ne euh, dafa jékki-jékki rek bàyyi ba fin du mois jot mu ne léegi découvert ca gab ba rek nga ko mën a jëlee xam nga tey koo xam ne sa payoor yow day ànd ak defu guerre fu nga mën a dundu di fayeku chéquier mu xëy na la léegi yow sa ba gàpp sa sa sa découvert banque xam nga foofu rafetul il faut nga dem jëndi carte gàpp carte gàpp par la force benn ñaareel bi mu jékki-jékki ne képp koo xam ne amoo plus de quatre cent mille dootoo fayeku ti ci guichet ci ci ci billetage guichet guichet c'est-à-dire mm-hmm. pour faye ko waaye nit ñi nga jaay leen chèque ñoom bañ jël seen chéquier weer bu dee ñu jël seen chèque dem retirer seen salaire wala seen payoor wala seen liñ fa am yow nga xëy rek jël dogal bu la neex ne képp koo xam ne chèque ba bindoo ci lu ëpp quatre cent mille doo ko retiré fii d'après nga koy retiré nga force nit ñi gab bi benn nit ñi am na benn banque boo xam ne xam mu def mhm. daa xëy rek dagg ñëpp waaw carte gab par la force carte gab service bancaire la bu la neexee jël bu la neexee bàyyi moyen de paiement la bu la neexee wut chéquier bu la neexee wut leneen moyen de paiement yi bëri nañ mais pourquoi ñu forcer nit ñi gab carte gab yi waaw même bi baax na waaw mais gab yi est ce que baax na gab de journée gab yoo xam ne day panne mm-hmm. ba pare concentré ko Dakar comme ni nga ko waxee banlieue boobu fa demee doo fa gis gab buy fonctionné mm-hmm. wala gab yi ñaar boo gab yàlla xam doy na te li ma seet ndox ma gabu almadi rek laa gis ñu du paan même bu paanee même pas cinq minutes ñu réparé ko mais bu dee yeneen secteurs yi ça gis nga baadoola ko lu muy daj ci banque ba borom alal bi du ko dal ci banque ba Pam Ndiaye boo demee banque ba di leb ay taux 14 pour cent 15 pour cent lañ lay lañ lay lañ lay appliqué. ok borom koppar bu ñëwee di leb ñu appliqué taux huit pour cent 7 pour cent nee nañ mutuel yi pour baadoola yi la baadoola banque ba ñi am tuuti ñoo fay def mutuel yi mutuelle yi mooy marchand ambulant ba nga xam ne amut entrepreneur buy door. wala ngay jaaykatu gerte caaf jaaykatu jën yeneen dem ci mutuelle yi seen taux vingt 24 pour cent la ce qui veut dire quoi système bi dañ tëgg ba nga xam ne ñuy ndóol dañuy gën a di dem ñii am dañuy gën a am di dem ñuy ndóol ñooy fayal ñi am ci biir banque ba même banque ba mu am Sénégal am France France boo fa demee taux du dépassé 3 pour cent boo ko waxee 3 pour cent sax kenn du la xool am na ay taux yoo xam ne sax et euh, 1 pour cent la ak waaye fii pour cent. ce qui veut dire ñoom seen i perte yu enregistré en France fii lañ koy compensé ñu ñooy fayal français yi bu yi di leb waaye loolu ñun dañoo war a toog di ko seetaan sénégalais yi toog seen i kër naan a ah, amee booy bi li muy wax dëgg la ah, booy bi li muy wax dëgg jar a jàppale toog seen i kër loolu faju ko te ku ci xaar état bi yaa ngi nax sa bopp état bi du ci jóg du ci jóg lu mu ciy def mais sénégalais yi dina la seen kër état bi du jóg lay xeexal mais mënul ne sénégalais yi nañu takk seen i tubéy jóg ñu ñëpp système banque nee naa vingt quatre heures ñu rek la il suffit que ñu woote rassemblement bu mag quatre vingt mille personnes génn ci mbedd bi bii deexi wa deexi Pam Ndiaye le lendement système bi yëpp changé système bi dootul wóorati ci ñoom boobaa ñoom ñooy daw ci état bi ne ko dimbaluñu waaye xaar état bi mu dem di naan banque yi def leen léegi def leen lii waaye sénégalais bu koy xaar moom bu yeboo na nga tëdd nalaw ak si fa ngay xeex ok bu ñu desee ci gap yi ba léegi euh, carte gap problème mu carte yi euh, am na beneen cas boo xamante ne am na sax suñu benn élément bu mu dal fii moom dafa nekk benn banque mais banque boobu noonu carte gap bi ñu ko yor may na ko mu ko utiliser ko ci yeneen banque yi mu dem ci beneen banque boobu retiré fa salaire am bi mais génnul mais dañ ko ko dagg mu dem def réclamation ñu ne ko effectivement gis nañu loolu par xam nga parrainage day am ci gàpp yi da ngay dem euh, tapé montant bi nga bëgg a tiré xaalis bi du génn mais gàpp daf koy daf koy daf koy comptabiliser mu dem recours di def recours ba léegi mënul fexe ba jot ci salaire am mu topp ci recours bi topp ci procédure ba beneen salaire topp ko fa encore te bële ba léegi jotagu ko loolu ku mu dal naka la ban yoon la war a jaar dëddul dëgg dëddul yoon gis nga seen bu paanee du responsabilité client bi responsabilité bi hmm. mais xam nga li nga wax ne li ci gën a garaaw mooy gis nga sa carte gab boobu nga yor nga bàyyi sa gabu banque dem beneen gabu banque gis nga retiré boo fa def jàppal ni xaalis bu takku lañ la ay deux mille cinq cent trois mille ça dépend ci montant bu nga fa retiré lañ lay fay te du yoon dañoo war a harmoniser gab yi boobu benn la ñaareel bi mooy comme li nga wax gab bi boo defee opération mu annulé ko wala mu paan mu marqué la yow di nga toog lu mu dee dee quarante cinq jours banque ba di liggéeyee sa xaalis sa salaire di ko lebal ma sàmba ma dem ba di ci am xaalis ba pare yow nga toog di tumuranke di torox ak sa njaboot xam nga boo fa demee lu ñuy wax boo bëggee ma nañ la defal découvert lebal la xaax sa xaalis boobu la ñuy jël mm-hmm. sa salaire la ñuy jël lebal la ko dina ci dagg intérêt mais bu ci gën a garaaw mooy ci cadre boobu bala maa dikkaat ci euh, gab yi mm-hmm. mooy date de xam nga damay wax ak benn bawol bawol mu ne ma siisee luy date de voleur <laughs> benn waaye di ko ree naan ko waaye kenn di wax la ñuy wax ma ne ko déet date de voleur la parce que kii lu mu wax prononcé na waxul terme mais moom la parce que France moom lañ koy woowee date de voleur waa Pam Ndiaye nga jot virement wala sa salaire wala bu mu mënta doon nga ñëw waa ji ne kacak kacak machine bi ne la ah xaalis baa ngi nii leer na nañ mu ngi nii moom nangamu million la wala nangamu mille la nga ne ko waa jox ma mu ne la déet amagul valeur pour mu am valeur il faut que soixante euh, douze heures mhm. nga ne waa léegi nu def mu ne ah mën nañ sa xaalis boo xam ne ñu ko viré mu nekk ci compte banque mu ne pour des questions de traitement xaalis bi la ko jël lebal na ko teg la ci ay intérêt mbir mi sàcc la gis nga gab yi nee nañ leen gab yi dafa war a am caméra de surveillance ci biir waaw boo defee opération gab bi annulé ko waaw boo ñëwee réclamation ñu génnee vidéo bi ñu xool waaw bu dee jël nga waaw ñu xam bu dee jëloo ñu immédiatement ñu remboursé la sa xaalis pourquoi ngay toog 45 jours banque ba di jël xaalis ba di ko lebal ma Samba ma Demba di ci liggéey yow ngay toog di boru ci encore demaat ci banque bi mu lay joxaat salaire boobu nee na da la ko lebal woo yaay nga war ko fay ay riba yu takku mhm. waaye nañ ñu respecté xam ne nag bu ñu jàppee ay jaam ñun boog actif jàppee wuñ suñu bopp jaam ñi toog seen kër moom bañ a xeex ñoom peut-être ñoom dañoo jàppee seen bopp jaam mais actif nee nañ duñu mës a nekk seen i jaam suñu génération ñun dañoo taxaw pour que changement yi ñoom seen dëkk yu ñu opeere ñu opéré ko fi ndax ku nekk gis si boppam parce que banque dafa nekk au centre du développement de pays mënoo wax développement dëkk mënoo wax émancipation question boo wax banque xam nga Babacar euh, dama dégg benn jour Babacar Justin Ndiaye di wax ne surtout tu veux comprendre les problèmes faut suivre les traces de l'argent wax na dëgg mhm. boo bëggee xam problème dëgg dëgg dëgg xoolal yoonu xaalis muy problème développement muy problème santé ba ci problème yaaya jaame lépp crane guerre mondiale Iran ak Irak xoolal yoonu xaalis rek boo bëggee comprendre mhm. loolu moom lu leer la donc nag ñun fi toog banques yi bëgg ñu def ay jàpp te li si gën a garaaw mooy dëkkuñu fi mm-hmm. xam nga loolu foofu la musiba njëkk amee sa kopparu réew moo moomoo ko sa koppar réew moo ko koom-koom moo moo ko banques yi ay banques étrangères lañ fële lañ jóge di liggéeyal seen dëkk liggéeyal ñu sénégalais yi seen i dëkk liggéeyal il faut que mu leer ñun lu ñu fi am ci banque matul ñett ay ay actionnaires yu ndaw lañ ci sax yi may lañ suñu banque bopp ay actionnaire pour cent lañ ci am ak yooyu matul sax du mat sax nañ waxante dëgg waa banque yi jóge fële ñu leen di seetaan ñuy ñëw banque centrale di nelaw il faut ñu wax ko parce que moom moo war a réguler justement foofu laa bëggoon ñëw Famara parce que bu ma la déggee bu baax mu mel ni kon euh, responsabilité du kese banque yi mais am na fi ay ñu fi nekk ñoo xam ne ñoom ñoo war a rëq seen digg wala boog redressé leen ne leen li ngeen di def jalgati la mais bu fekkente ni seetaan nañ ci mu mel ni ñun bu weesoo euh, euh, ñoo war a réguler secteur boobu également ne ko ndax gis nga sa bopp ci banque centrale mun na la waaw ndax banque centrale defal na la lii mën na la limal loolu la ko banque centrale defal 19 mesures de gratuité yi bu ko jëlee fukki poñ ak juróom-ñeent yi nga xam dañ ne dafa gratuit waaw mu waroon dugg depuis 1er octobre 2014 ba tey mooy wax ak nii ñu ngi waaj a dugg ci 2017 3 ans après banque yi lànk na duñ applique banque centrale amul benn pouvoir de sanction si ñoom mais nag mën naa leen comprendre xamul tax mm-hmm. waaw n'importe quelle banque ba nga jël fii waa réseau dafa xat ci banque centrale waaw banque centrale ñaata pays pauvre la espace mois la ay pays pauvre rek ko seeg mhm. waaw nga jël lu mel ni SGBS nga xam ne mu ngi presque cent pays ay pays développé waaw kooku banque centrale bii ban sanction bu ñu bàyyi Sénégal yi ñuy nax banque centrale bu directeur national banque centrale dégg naa ko mu naan day jël ay sanction di ko teg ci banques yi amul benn sanction bu muy teg ci banques yi bu ñu jëlee 19 mesures yi banques yi bañ a appliqué ñu naan dañuy teg sanction man dama leen ne amul sanction ne leen banques yi ñu remboursé rek bu ne ku ñëw di ibbi compte dañ laa fayloo wala SMS yi ngi génn ñu ne envoyé dañ la ko fayloo amul sanction. ok ne leen rek banque ba dellool ñooñu mais léegi ana mëntul ne matériellement mëntul ne parce que banque boobu amoon na am na ñoo xam ne ñu ngi fa dagg nañ leen ko bàyyi nañ. Mhm. ñooñu nañ leen koy fayee donc banque centrale encore une bu dee sénégalais yi ci banque centrale lañ yaakaar ah. seen yaakaar tas na parce que amul benn pouvoir de sanction benn pouvoir de sanction 19 mesures de gratuité yi nga fi wax léegi ne xam naa très rapidement rek nga am yoo ñu ci jukkil rek waaw xam nga 19 mesures yi dañ ne euh, pour favoriser inclusion bancaire la mhm. ak bancarisation mesure bi ñu ngi ko jël en 2002 Sénégal adopté ko en 2004 ñu appliqué ko réellement nag en 2010 ngeen gis ni billetage yëpp supprimé nañ ko képp ku am salaire boo xam ne ëpp na 100000 francs dañ naan euh, employeur bi viré ko banque mu nekk ñu lu ñu rafetlu parce que ñun contre ñu banque bañu ñu banque mais dañu bëgg rek ay banque yoo xam ne contrat bi gagnant gagnant lay doon Sénégalais bi gis ci boppam waa banque bi gis ci boppam comme ñoom dañuy liggéey commercial lañ amul problème hmm. comprendre nga ñu ne ci 19 mesures yooyu am na ca relever de compte daanaka yow am nga lu la jiix jaaxal sa compte xamoo nu mu demee nga dem ñu jox la ko benn yoon gratuitement weer bu ne ñu jox la ko benn yoon gratuitement mais tey dama taxaw sa banque nga ne leen relevé de compte bëgg ñu facturer la 5000 deux mille cinq cent lu kenn xamul mesure baa ngi fi appliqué wuñu ñu ne waa ku ubbi compte nañ ko yombalal ndax nit ñi am ay compte bancaire jël seen xaalis yóbbu ko banque bàyyi xaalis bu ñuy jël di ko bàyyi seen kër yi muy tàkk ak ay musiba leen dal ñu ne comme kuy ubbi compte nañ ko defal gratuit kuy tëj sa compte nañ ko defal gratuit waaye Pape Ndiaye yow suba demal ne da ngay tëj sa compte boo leen ameelul dara taxaw ne damay tëj compte bi ñu lank tëdd suuf ne la doo ko fi tëjee nan la ay attestation d' engagement non engagement nga leen soxlawu ma ko parce que yooyu ay service la service da koy demandé jox la ko mhm. mais boo ko soxlawul tëjal ma compte bi mu lànk am na benn banque boo xam ne mutuelle la sax wax mhm. dafa taxaw ne kenn du génn Pape Ndiaye déggoo ma de dafa taxaw ne bëgg doo génn bañ doo génn leen génnul compte boobu boo ko fa bàyyee dem ci beneen banque tëj fa beneen compte lan moo la ci mën a fekk waaw xam nga xam nga tey bu dee salarié nga doo ko parce que ñun yàgg nañ ci attirer attention direction de la solde ak comptable yi nga xam ne ñooy fay ñu ne leen client bi bu ñëwee ne leen ma dara banque bi changer sama domiciliation de salaire da nga war a vérifier bu dee amelul dara banque bi nga changer domiciliation salaire mais ay attestation d' engagement yi ngay demandé de non engagement yi ngay demandé wala ay euh, dossier de clôture de compte mooy attestation de clôture de compte yooyu banques yi nanguñu ko joxe wala bu ñu la koy jox nañ la da nga ci fay xaalis bu takku bu dee commerçant nga nga bëgg a jóge sa banque wala agriculteur amoo salaire nga jóge sa banque dem beneen banque waa xam nga procédure bu mel noonu pays yu civilisé yi parce que ñaari banque ñoo la sëkk ñaari ponk la la ka nga jam ponkal la ka ngay jóge ponkal la ku nekk day jéem a lekk ci yow xaalis waa kooku loi war ta protéger la moyen offert banque ba am na avocat fa nga jóge banque ba nga jëm am na avocat ku nekk nga jéem a lekk sa xaalis yow rek yaay perte waa procédure boobu ci dëkk yu civilisé yi dañ ngay def ba nga xam ne mobilité bancaire bi du client bi rek rek rek moo war a perdre mais fii mobilité bancaire client bi rek lay war a perdre beneen bi laaj mooy compte boobu noonu mhm. banquier dañ ko fay bàyyi boo ko tëjul dañ ko fay bàyyi duñ la wax dara nga nekk ci beneen compte dafa dugal sa xaalis maara day musiba boo jëlee xaalis dugal ko ci compte boobu maara day taala boo jëlee xaalis dugal ko ci compte boobu machine ba day buub lépp hmm. bu dee bàyyi nga ko carrément dematoo fa dañuy xëy dañuy bàyyi de boo mat at ñaari at ñu xëy benn jour indil la facture cinq cent mille ne la yaa ñu amel cinq cent mille ba nga demee tëjoo compte bi boobu ba léegi ay agio ñoo doon jàll léegi da nga ñuy fay cinq cent mille mbaa ñu jàpp la nangu say bien yóbbu la tribunal la fu ko teg bàyyi naa jox ma këyit bu wane ne bàyyi naa amelu ma la dara nga lànk ne du ma a bàyyi mu dem yoonam nga xëy benn jour yóbbu ko tribunal ne waaw compte bi da ko bàyyoon foofu. muy général parce que lu mel noonu sax moo fi indiwoon incident bi fi boobu doon jaabante loo jaabante yu bëri. pour mais mais mais boobu dafa nekk ci yoon xam nga tey nga ne banque bi dama bëgg génn mu ne da ngay fay attestation d' engagement non engagement cent soixante quinze mille cinq cent nga fay. mu ne la waaw prêt bi da nga koy teel a fay teel fay baaxul pénalité de remboursement par anticipation li nga li nga war a fay yëpp dañ ciy dolli benn 10 pour cent encore ci ci li ñu calculer nga fay. këyit bi léegi ñu ne war a jox pour nga dem sa yoon reçu boobu de te fay nga ko pare de. Mhm. ñu naan la tey suba gannaaw suba tey suba gannaaw suba waaye commando bi bu mu xoloo <laughs> fekk moom fu mu jëm jël na fa pare ba pare parce que tamit dañu wax rachat de crédit da ngay dem jël fële xaalis mhm. ñëw fay bor bi waa ki nga dagg ki nga jël xaalis moom. mu ngi lay dagg ay ay ay ay pénalité mu ngi lay dagg échéance mu ngi lay dagg ay frais te yow kii mu ngi yéexantoog sa këyit di lekk tamit moo tax ma ne la ñaar ñëpp ñuy lekk mm-hmm. moo tax état bi dafa war a jël des mesures ba pare doole tolloowu sa banque yow boo ko toojee bu teg la ay daan waaw moom bu la tooñee bàyyi naa ko yàlla wala awma lu ma jëlee avocat warate demee noonu moo tax ñu ne il faut que ñu mettre en place un fonds destiné à payer les frais de procès des petits clients daanaka fonds boobu dañ koy teg client bu ñëw am problème ak banque comme banque ba am na avocat yooyu ñu jox la avocat nga dem taxaw mm-hmm. conseil juridique c'est la moindre des choses ñu ne ñu xaalis bi fu ngeen koy jëlee xaalis bu ñuy tegee fonds bi ñu ne leen dafa am lu ñuy wax taxe sur les affaires financières képp kuy jël prêt wala ngay dem banque ñu ngi lay dagg taxe waa taxe boobu ñu koy jox état bi waa état bi moom da moom client bi bu amee mu seetaan ko waa nañ ci jël zéro virgule pour cent. waaw que teg pont ba. zéro virgule un pour cent. ñu teg pont ba. yow tey mii nga xam ne zéro virgule euh, fay nga taxe boobu am nga problème ak banque bi te xam nañ ni doole tolloowul balaa nga naan bàyyi naa ko yàlla. wala damay dem tribunal même boo amee dëgg toor lañ lay jox parce que amoo conseil juridique xamoo yoon wi ngay jaar. ok ñu jox la ci avocat. conseil juridique mu xelal la bu leen demee bu dee nag banque bi la tooñ waaw tribunal mën ko teg daan mais ñu lank tëdd suuf. d' accord parce que Sénégal li ñu seetlu sax mooy euh, assistance obligatoire d'un avocat matière criminelle lañ koy seetlu ñi nga xam ne dañuy dem chambre criminelle ñu war leen àtte mais bu dem beneen matière bi tamit euh, yaakaar naa am na fi li ñu tuddee assistance judiciaire muy benn fonds boo xamante at bu jot état du Sénégal daf koy joxe pour maanaam ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe ak yoon te amuñu euh, a ñi nga xam ne ñoom ñooy banques yi jërëjëf Famara am na solo a baax dina gindi ñi ñoo bàyyi xel ñu xam bu baax a baax mbooleem jafe-jafe yi nga xamante ne ñu koy am ak seen banque yi ñu xam ban yor la jaar pour saafaraw waaye tamit ñi nga xamante ñoom ñooy nguur de banque yi yaakaar naa ni dégg ngeen kàddu yi nga xamante euh, moo ci jib euh, yaakaar naa ni waxtu yu jot nag ñu jublu ci suñu gan yi nga xamante ñoom ñoo fi teew muy maanaam public bi jël si quelques intervention rek bu fekkente ne am na lu ñuy laaj suñu expert bi indi ci ay tontu wala tam bu fekkente ne am na ay xelal wala suggestion remarque recommandation yoo xamante ne euh, dañ koy formuler rek ñu jox leen ci kàddu gi su ko defee kon ñu jegee micro bi rek mën a sànni kàddu yi nga xamante ne bëgg nañ ko ci thème en rapport ak thème bi nga xamante ni moom la ñu tànn tey di ko waxtaane muy maanaam euh, droit bancaire salaamaaleykum mbooloo mi euh, man la Abdou Diouf jóge ba Thiès doon vice président ak SIF association des clients et société des gestions financières bon balaa maa tàmbali dama lay remercier yow Pape Ndiaye surtout remercier chaîne de télévision bi ñu naan Walfadjri pourquoi parce que gis nañ taxawaayam ci dëkk bi en même temps remercier public bi waa pa waa Patisen def nañ mobilisation ñëw am na yeneen ñu ñoo xamante ne aussi dañuy yëngatu ci yenn kuréel yi ñëw parce que comprendre nañ objectifu xeex bi man nag damay tënk te tënk bi mooy profité yokk ci li président wax maanaam yokk a sensibiliser les clients pourquoi parce que problème bi yëpp ci prêt yi lay jógee te problème problème yooyu li ko lal mooy banque bi lam lay wax comme ni ko intervenant boobu waxee ak li muy def c'est diamétralement opposé boo jëlee prêt supposons ñoom taux boobu ñuy publier maanaam ñu naan ko taux nominal mbala taux débiteur moom la booy ñëw dañ la naan 5 pour cent la 7 pour cent la loolu mooy tax nit ñi daw si mais ci ginnaaw taux boobu dafa am benn taux bu ñu naan taux annuel effectif global taux boobu nag moom moo lay permettre yow bu dee téeméer lañ la lebal bu ñu ci tegee 300 francs nga xam ne 800 francs lañ lay fay mais taux boobu ñoom ñu la ko wax dañ koy nëbb ci suuf léegi nag boo duggee ba ci biir ci ngay xam ne nag man ci li ma dugg nii du la ma foogoon parce que taux boobu moom mooy regrouper taux euh, nominal boobu ñu naan taux débiteur regrouper regrouper frais de dossier yi frais assurance yi ak taxes mais ñoom duñ ko wax looloo tax très souvent ñuy wax désinformation ci affaire prêt ci banque aussi xaalis bi nga xam ne da nga ko jënd deux virgule cinq pour cent boo koy leble jëlal sax cinq pour cent muy cent pour cent mais tey nga jël ko leble ko ci quatorze pour cent quinze pour cent loolu yëpp nga koy def askan woo xamante ne ay innocent lañ xamuñ dara ci banque microfinance bi nga xamante ne moom moo lañ def pour la les les défavorisés mmh. ñooñu dañuy dem ba vingt quatre pour cent comme ni ko président waxe tey dang remarque bi mun nañ ko def sur le terrain femmes yi nga xam ne dañuy jóg fajar dem siwo la ñuy commencé di jënd jënd di jaay boo commencé liggéey xanaa boo ci defee at war nga jël paan nag def jë ñu ñu nekk ak kii liggéeyam bi am na ci amélioration mais loolu gisuñu ko interpellation bi nga xamante ne ci lay mujj mooy affaire assurance yi parce que dañ ma ci interpellé lu bëree bëri tey jii problème mu assurance boobu mu naan prime d' assurance emprunteur maanaam yow boo def booy def prêt banque bi dala naan il faut nga souscrire ci assurance léegi nag assurance boobu boo ci souscrire yoon moo wax xam nga Sénégal dafa ratifié benn code bu ñu naan code CIMA conférence interafricaine des marchés d' assurance. Hmm. code boobu boo demee ci section 2 ba article 81 moom moo ne les entreprises d' assurance sur la vie de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices technique et financiers qu'elles réalisent maanaam nit ki bu souscrire ci benn assurance. boo demee ba at bu dee risque bi tax mu souscrire assurance boobu avéré wul maanaam risque bi <laughs> matérialiser wuñ ko entreprise bi dafa war a rétrocéder client bi li ñu naan prime d' assurance emprunteur nasaraan mu ngi koy wax aussi la participation aux bénéfices techniques et financiers. Mm-hmm. loolu sur le terrain man dama ci am interpellation yu bëri des fois client bi def prêt at bi ñëw mu woo euh, kii bi mu ne ko yow. man dama soxla woon nga calculer ma li ma am foofu suma prime d'assurance mais kooku da da ko naan tu n'as droit à ça. Mm. à ma grande surprise semaine pass Thiès dama taxaw buntu banque bi may fay ko benn nit ñëw ne ma ah man de fay nañ ma suma prime. man na ko yow noo tudd mu mu ne ma du la wax suma tur wax dëgg fa yàlla parce que ki ma ko wax ci banque lay liggéey wax ma yoon bi ma jaar ba percevoir loolu. ma ne ko nag bu dee yow sénégalais nga te sénégalais yi dañu bëgg jaar fi nga jaar man nag ma waroon jox say coordonnées jox ma numéro téléphone bi nga xamante ne moom nga woote pour. bénéficier wu ci loolu mais nanguwuma jox ay coordonnées te ma jàpp ne loolu étant donné que Sénégal da ko ratifié rek c'est un droit boo defee prêt fay ko pendant un an le risque n'est pas avéré banque bi daf la war a rétrocéder li ñu naan li ñu naan sa prime d'assurance emprunteur ok mais tel n'est pas ok ok yaakaar naa ne intervention boobu dégg na ko bu baax a baax. ci wàllum assurance yi yaakaar naa ci waxtaan bi la bokk sax dinañ ci ñëwaat bu baax a baax. alors bu dee am na beneen intervention bu war a jóge ci public bi rek mu jege micro bi daal di ci sànni kàddu lépp rek mu tënku ci sujet bi nga xam ne tàng nañ ko tey di ko waxtaanee. salaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh Sadibou Diagne Gueye secrétaire général actif euh, ci boîte bi ma nekk. bon man li ma remarqué euh, te jamono yi ma dund ko mooy j'ai benn bi euh, benn suñu sama benn collègue bu nekk membre ci actif dafa amoon euh, euh, problème ci banque bi mu nekkoon banque bi banque banque bi mi ngi nekk zone industrielle bi mu demee def rachat wara jot certificat d'engagement non engagement bi affaire bi yàgg muy jaabante xam naa finalement problème am na fa ñu duma ko ci biir ci biir institution financière bi mm-hmm. biñ ko duma waa ji am certificat médical d'indisponibilité de sept jours ñu porter plainte si police bi fa nekk vraiment foofu tamit bi ñu fa yeggee fekk nañ fa des gens yoo xam ni euh, def nañ seen liggéey mooy convoqué nañ leen ñoom ñu ñëw bi ñu ñëwee ñoom demandé nañu délai bu court gaawantu indi certificat de non engagement bi ak certificat d' engagement bi man euh, beneen cas bi may wax mooy koo xam ni tamit aussi yorelu yorewul yorelul banque dara bëgg a génn si banque bi ñu koy jaabante pendant deux mois mu porté plainte bi mu porté plainte mention plainte bi nekk nii dañ koo renvoyé si maison de la justice Sénégal daf man ni ma koy jàppee mooy caaxaan daf fee bëri li tax caaxaan bëri fi mooy yow mi nekk client ci biir banque buñ la tooñee dañ lay wutal un médiateur waaye yow bu la banque bi tooñee wala nga tooñ banque bi mu ameel ko du jar médiateur ñoom dañuy wut seen i procédure fexe nu ñu nangoo la nga fa garanti euh, li président wax tamit aussi euh, mooy hémicycle bi xuloog tàccu at wax lu leen loo xam ni peut-être euh, askan bi ñu ngi leen fay xaar te newuñu fa loolu moo waa assemblée nationale parce que liggéeyuñu liggéey bi mooy fa leen di sénégalais yi di xaar diggantaan njaay si si projet de loi yu yuy accompagner client de banque yi man de ba depuis ba ma toogee ba léegi toogaguma benn yoon si ñoom dégg leen ñu génne loo xam dañ ko proposé kat travailleurs yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ñooy commerçant yi yëg si seen bopp ci si biir institution financière yi loolu ñu tamit am nañ si part de responsabilité man li ma ci gis mooy ñoom ni ñuy xët-xëtee di reyante di di di di di di reyante pour dem si hémicycle bi nekk ay député ñun ñu def la même chose pour que bu ñu demee au moins ñu mën a liggéey mën a trouver solution yu concret jëm yu jëm si institution financière yi man daal. mooy solution bi may proposer. Mhm. beneen bi mooy. tënk rek. waaw si tënk ci gàttal mooy euh, institution financière yi nga xam dañuy bañ a jox certificat de non engagement wala certificat de euh, euh, clôture de compte yi nga xam ni tant amoo ko sa employeur du alerter salaire bi mu fay envoyé. banque centrale bi génn 19 mesures yi wax dëgg yàlla ci lu gaaw war na prononcé wu. bu fekkee ne dafa bëgg ay preuve ñu jox ko ay preuve ñu loolu am na ça existe bel et bien bu fekkee ne banque centrale il est là pour réguler régulariser euh, les banques yi nga xam ne ñoo nekk fii au si Sénégal ñun du ñu ay japonais du ñu ay indiens ay sénégalais lañu bu dee ñoom ils sont là pour pour que ñu jox leen ay preuve pare nañu bu ñu ñëwee ñu jox leen ay preuve loolu daal laa amoon lu ma ci wax jërëjëf jërëjëf ñi ngi rafetlu bu baax kaddu kaddu yi nga xamante ni yëkkati nañ ko fi yaakaar naa ne am na yeneen kuréel yu fi teew ligue des consommateurs wala représentant maraîcher bu kayaar bi ñoom tam ñu ngi ci jotaay bi ñu sànni ci kaddu asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di kenn ku ne turam ak santam di rafet lu émission bi di nuyu président Famara si Cissé di nuyu suñu représentant Thiès région Thiès Diouf ak di nuyu kii dirige émission bi monsieur monsieur comment Pape Ndiaye Pape gis nañ que lu muy liggéey rafet na trop <coughs> ñun nag ay maraîchers lañu ñun ñoo nekk zone di ñaay bi parce que am na banque yu bëri kenn sax ñun du ñuy jëflante ay banque daal ni ñu koy waxee ñun ay mutuelle la ñuy jëflanteel mutuelle yi nag dafa am ñoo xamante ne moom ñu ñuy liggéey foofu doy na waar wóor na man mii xamante Diouf mii am na sama benn mbokk béykat la suñu côté yooyu la nekk dafa am benn jour mu yoral prêt benn benn institution microfinance bor bi nag taxul mu bëri lool parce que bor bi presque matul au million te booy xool bor bi yëpp lépp investissement la te boo lebalee nit lu mel ni investissement luy diire ñaari at mu doog presque yàqu wala am problème war nga ko defal pere yombal ko ba nu mu koy fayee mu yomb parce que da nga ko defal ñaari at loo xamante ni lii moom mënul yàqu fekk ñaari at ñu defal ko un an par trois mois léegi mbéy mbéy mi lu mu métti métti bu dee da ngay ci maraîchage ngay nekk lu mu dee de six mois nga mën a jeexal benn campagne yow léegi defal nga nit at mhm. bor motul au million nga defal bor at léegi trois mu ne trois mois yu ne dafa war a dem fay te loolu métti na léegi loolu ba mu amee problème yooyu nag euh, kii ni ñoom dañ ñëw ba ci moom menacé ko ñu menacé ko toroxal ko ci biir tool yi fekk mu ngi am ay surgam lépp ñu ngi liggéey ñu ñu toroxal ko di ko joxoñ di ko def lu métti moom sax dafa naroon dem réagir parce que demoon ba xolam jeex ma ne ko noonu bàyyil noonu ci laaw contacté monsieur Diouf mi mu ñëw ñu jàppal ci ba procureur sax euh, keneen ki jot na ci ba jàppale ko ba mu xamante ne moom bu dul woon loolu kooku def waxoon ne moom kit na ci banque day sax dem <coughs> xaruju wala leneen loolu métti la banque yi mutuelle yi ñoo waroon nekk ci suuf mm. ñuy li nit yi ndax nit yi mën a jëm ci kaw mais mutuelle booy xool mënoo ci nekk nekk ba nga avance ci mënoo ci avancé jamais jërëjëf jërëjëf waaw mënoo ci avancé su ma sañoon daal gouvernement bi mën jàppale jërëjëf waxtu bi moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu xaw a dab rek ñi dégg gu du ñëw sànni ci kàddu tuuti yaakaar naa na ñu fi teew ku ci ñoom waa Bambilor yi teew nañ fii ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen daal ñoom tam bu ñu ci mënoon sànni kàddu balaay temps bi di ñu kii ndaxte waxtu bi daf ñoo xaw a dab tuuti lépp rek mu tënk ñu tënk ko ci waxtu wi waaye tamit tënk ko ci thème bi nga xam ne moom la ñu tànn di ko waxtaane muy droit bancaire salaamaaleykum mbooloo mi man la Penda Badiane maag sama gars yi ñoo bokk service bi ñuy liggéeyee ma nag dama ñëw pour dëggal lu fi gars yi wax yëpp ndax ma dama ko dund expérience laa ci am première fois dama njëkk def benn prêt ci benn banque mu ni ma dama lay épargner benn PEP ñu dem ba fin prêt bi ma ne ko an sama PEP mu ni ma dugalaloon nañ la ko gisuma ko gëwuma ko ma ne dinaa defaat beneen uniquement pour pour vérifier ma defaat beneen beneen prêt toppaat leen toppaat leen ba fin bi man leen sama PEP ñu ne ma encore dugalaatoon man leen ban mois relever indi kii yëpp teg ñu werante si ba tëdd si suuf man leen léegi damay génn ñu may këyitloo ma nekk fa ñoom daw ak ñoom daw ak ba sonn ñu ni sekk duñ ma bindal lettre noon engagement duñ ma ko jox ma dem sama service gaa bi ni ma boo defee sa demande ma même bu ñu la defalee kache yow ñëwal nga jox ma kache bi rek moom laa soxla ma ne waa d'accord ma dem fay leen seen trente mille ni leen léegi cachet laa kii bi laa soxla sama sama non autorisation non engagement ñu ne ma dangay ñëwaat man leen du ma ñëwaat instant yi mënu ma ñu ne ma defal demande ma def sama demande ñëw jox ko mu daa jël ki bi bëgg a raay ko déedéet defal ma décharge parce que deux exemplaires laa la indil mu ne comment décharge ma ne ko danga may defal sa signature ak sa cachet mu xoolaat ma xam ni man mi fu ma jëm ak moom du neex mu daa de xool mu xool daal di jël def jox ki ma dem jubali ko directement si ku may fay sama salaire depuis jour boobu la commencé viré dem yoonam ba tey woowuñ ma ni ma yow la gisaatuñ la wala lii gisaatuñ wala nii sama salaire maa ngi continué ko jot alhamdulilah mais bu ma def noonu du ma ko mës a jot ndax samay moroom yi si bëri ñu sama ginnaaw ba tey mënuñu fexe ba génn si banque boobu ndax ñu ngi leen téye ak ay problème yu dul jeex. ok loolu ne laa amoon du ma siy leeral. ok jërëjëf yaakaar naa dégg nañ intervention bi euh, waaw beneen beneen beneen intervention. Mhm. Euh, asalaamaaleykum mbooloo man je de la Ligue des consommateurs. Mhm. Euh, balaa may dugg ci sujet bi sax damay remercier d'abord euh, le président l'actif monsieur Famara Cissé remercier Pam Ndiaye bi yore émission bi di journaliste euh, di ko xamal ni yemul ci lii rek parce que mu ngi ci émission yoo xam ne mm-hmm. yu intéressant lañu aussi te yu ñuy suivre la euh, ma sama président du professeur El Hadji aussi mi ngi leen di yóbbante remerciement am di leen nuyu di leen gërëm di leen sant mi ma koy waxal ne naa ko waxal président Ibrahima Famara Cissé ak secrétaire généralu Ligue des consommateurs di Assane Boy pour en revenir au vif du sujet defe naa ne li président wax fi ak li ko Pam Ndiaye laaj tënk na lépp mën nañoo bañ a tardé ndax man sa wàllu bopp xëy na bu ma ko dundulee it directement dundu naa ko indirectement parce que jamono yi paase rek amoon na lu xew loolu ci sama kër waaye na ma ca na ma ko réglé moom ndax damaa waxtaan parce que ku xamul da laaj mm-hmm. man dama nekk ci benn boor ñoom ñu nekk si benn boor ma yaakaar na ñun ligue des consommateurs le collectif des assurances des consommateurs bu ñu boolee suñu doole ak ñoom seen doole danañ mën a régler yu bari fii yoo xam ne loolu nga wax ne assemblée man gëmuma assemblée nationale lii du assemblée nationale moom lii c'est une foire rek quoi mais lii moom du assemblée nationale bon mun nañu régler suñuy problème sans que ñu jaar ci ñi ngeen tudd du mën a sax tudd waaye comme que réew mi dañoo wax ne suñu réew ñoo ko bokk balaa ñu koy yàq wala am ñoo xam ne ñoom seen intérêt bopp rek parce que man dama leen tuddee ay terroristes ñii c'est des terroristes à col blanc c'est mën naa ko sax ay négrier la ah parce que ñoom amuñu benn sentiment loo xam ne ci humain ci humanisme la jëm ci nit ñi parce que kuy dem bay ñëw ci kër nit net lu ma lu ma gis pour huit mille francs nga toog di ko harcelé ñëw di ko pressionné ci jigéen boo xam ne xam nga ne jàngul nga naan ko dama lebi maa ngi lay xaar dama lebi maa ngi lay xaar loolu am na mais ka ka def moom dafa naan dootu ko def ndax ba ma njëkkee awa moom ca téléphone mu nekk ci microcrédit bii di Mohamed Ndiaye nekk ci microcrédit bii ci HLM ci guy gi ma ne ko amuloo droit boobu wax naa la waxtaan naa président Cissé yëg na ko amuloo droit li ngay def ci man lu ma xamul damay laajte mu ne ma si ba ne ko d' accord ba mu ñëwee sama buntu kër fa mu tax dama ne ko bis ni ki tey soo duggatee ci kër gi dinaa la futtali dumalul la jowete bastole maam que da nga may jaay bandi man ma jaay la gàncax gi. violation de domicile waaw violation de domicile agression loolu moo xam naa ko délit yooyu xam naa ko yow mi ci ñu ko jàngal ci nga bokk. Mhm. bon kon bu loolu amee doonu li ma wax léegi wax ji moom lu ko gàkkal moo gën lu ko guddal président Famara wax ne lépp fi li am mooy nañuy booloo bu nu woowee ñu ñëw ñu ñëw ci émission yi tey it yéen ñu mel ni Pam Ndiaye ngeen jàppale ñu parce que média dafa am importance. Mhm. c' est pas pour rien que le le président le plus puissant du monde média ko daaneel fii ci États-Unis ab benn journaliste la média lu am importance wax ju mel nii dafay am importance. lu ma bëgg bëgguma guddi na bëgg dama bëgg a gàttal man damay dem rek di leen remercier di remercier pam di remercier président Ibrahima ak ñu collaborateur pour te it ëllëg nanuy def nii man su ma amee loo xam ne mun naa ki en tant que association de consommateurs ma woo leen si yéen tëpp ngeen ma si woo ñu mm-hmm. boole bu boobaa yàlla dina mën a jàppale Mariam Faye ah na ci sànni kàddu ki amoon question pour finance islamique bi moom mën na waajal tamit ah xam naa ci moom la ñuy tukkalu tiré ndaxte temps moo ñu xaw a tuuti rek <laughs> asalaamaaleykum mbooloo waaw ñu tënk rek ah ndaxte waxtu bi daanaka dara desatu ci ah ñu tënk rek. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp ci nekk sa tur ak sa sant di gërëm Cheikh Sadibou mu ñu fi indi gërëm sant mais lii ñuy wax ci banque man am na lu ma ci dund man waaye ba ma ko dundee sama banque dama nekk comme lebaloo ma te lu ma am ci sama compte jël nga ko man maay doxal sama bopp tey bésu tey. nga may yóbbu sa directeur ma génn mu ne ma doo génnee noonu ma ne ko duma leen fay ñaar dërëm la ca compte ba jël leen ko lu ngeen xam ngeen def waaye sama salaire bu fi jaaree tey suba gendarmerie moo ko fi jël si ñu waxtaan ci loolu ñu ne comme man dama bari histoire léegi ñoom nañ ma bàyyi ma dem man nag boolew ma ci samay wax ndax booba fippu naa mais lii ngeen di def nii da ngeen a war a jóg ngeen wërale lëkk àddina bi yépp ci nekk jot ci parce que nit ñi ñu ngi dox ci loo xam ne xamuñu fan la ñu jëm ak moom man association laa yor Bambilor laa dëkk ànd jubal de Bambilor mais man maa ngi dugg ci banque façon tolof tolof bu ne maa ngi ko am ci bank mm. façon bu ne boo xalaatul ne am naa ko rek am naa ko ndax ñii danga nga leen di duggal ñu war a fay fayuñu mm. yow yaa ko yem ndax yow yaa signé ji woon la nga signé ji woon dañ la naan carrément ñëwal yow yaa ko signé sa bopp signé ba ba nga koy signé yaa ñëpp ànd nga def ko lu mel nii daal dama bëgg addina bépp jóg mhm. àddina bépp nañ ci jóg ñu dox li wax ko parce que man li ma gën a jaaxal mooy yow da ngay ko ci banque yow sa sëkki yee fàtte nga ko sa kër mais yow kii biñ lay jox da ngay fayaat da ngay fay ñu door laa fay sa xaalis mm-hmm. mille trois cent xaw ma lan mm-hmm. loolu c'est pas normal loolu jaadu mm-hmm. lii ngeen di def yàlla na leen ci yàlla dimbali yàlla taxawu leen ci jërëjëf da ngeen jàppale ñu te yàlla jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf est-ce que xam naa ne boobu moom mooy doon kaddu parce que techniciens yi nee nañ ma temps bi jeex na tàkk tàkk tàkk xam naa ne moom euh, dinañ ma dinañ ma baal débordement bi tuuti rek ñu tënk ko rek ah trente secondes rek salaamaaleykum man Boubacar Biro Diallo laa tudd xam naa wax ji du kii quoi dafa amoon rek lu ma bëggoon tuuti. waaw question bi direct ah. rek posé ko directement mooy sénégalais xam nañ ni majeure partie ay croyants lañ. soit ñu nekk jullit wala ñu nekk chrétien te religion yooyu dañu bañ lu ñu wax riba mooy intérêt. léegi euh, lu may laaj Famara mooy est-ce que ci biir Sénégal am ay institutions financière yoo xamante ne du ñu pratiquer riba mooy intérêt bi. bu fekkee am na yan la bu fekkee amul yan solution lay préconiser pour sénégalais yi nga xamante dañoo bëgg ko moytu riba. ok très bien loolu moo doon question dégg na question bi une toute dernière intervention ah soxna si mën na mën na mën na poser ñu clôturer ko avant ñu ñëw ci plateau bi ndaxte daanaka euh, temps bi euh, li ñu cërale woon mat na sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk ayca salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm surtout nag di gërëm Sidi Lamine Niass parce que télém bi am na solo Papa xale nga wante yaa ngi def euh, rolu mag yàlla na la yàlla def mag mu am ñam man euh, ci li may intervenir rek lenn la mooy ci affaire euh, banque de l'habitat maanaam kër bu nu la ko joxee ba pare clause yenu signante ak yow te respecté wuñu ko nga fay ba mu jeex mosoo am benn pénalité ñu wëlbatiku war la jox sa titre foncier am yeneen sart yu nga xam ne dana la koy jox di la ko laaj loolu aussi moom mu ñu ngi laaj ndax loolu am na solo am ngeen ci réponse mhm. ñaareel ba am na aussi suñu benn tout récemment suñu benn collègue dañu juum ci salaire am fekk ñu ngi koy fay ci benn banque mu muy demandé euh, pour dellu ci beneen banque retraité ñu viré waat ko ci banque bi mu jóge woon kooku itam am nañ ci question bu ñuy laaj leneen li ci des mhm. muy affaire u femmes yi euh, mutuelle yi mhm. kooku moom awma ci problème parce que ni ko Famara waxee rek ku nekk war nga am sa euh, conseiller juridique ku ne war nga am sa leneen lu lay xelal loolu moom maa ngi ci maa ngi ci lool laa leen di conseillé ñoom ñëpp ndax waxtu wi dafa gàtt. moo tax mm-hmm. mënuma euh, dëgg la kay jërëjëf wax leneen ak leneen. jërëjëf ba émission. jërëjëf jërëjëf président yaakaar naa dégg nga toutes les interventions yi nga xamante ne jib na fi yan réponse nga ciy indi. waaw yaatu na mais dañ koy tënk rek bi ci njëkk mooy assurance bi. Mm-hmm. nañu banque yi delloo suñu assurance. Mm-hmm. ñu bëri dañuy yaakaar ne assurance bi bu prêt bi jeexee la la ko banque bi war a jox waaye du loolu ak bu ne banque bi dala war a delloo une ci assurance bi mu ñu wax participation au bénéfice technique xaalis boobu ñu lay dagg ci sa prêt boobu ci en gis d' assurance dugal ñu ko ci kees tëgg tëdd tëj ko dañ ko dugal daal le marché financier mu jur boobu la ñuy wax la participation au bénéfice financier ñaar yëpp c' est la participation au résultat xaalis bu takku la at bu ne dañ ko war a jox client bi compagnie d' assurance yi ñu ngi koy banque banques yi pour ñu jox ko client yi banques yi ci looloo am lu tax compagnie d' assurance yi nanguñ cee wax lii la mooy marché banque dafa rëy banque ba dana naan damay commercialiser say contrat d'assurance ci clients yi di ñëw bëgg pare ci man en contrepartie yow participation au résultat bi nga koy jox doo ko jox directement client bi mhm. loolu moo dul yoon gis nga yeneen dëkk yi dafa am lu mel ni France la loi Lagarde dafa ne képp koo xam ne da ngay dem banque di contracté sa prêt bu la neexee dem wuti sa compagnie d'assurance bu lay assurer mais dès lors que lëkkaloo am na entre compagnie d'assurance yeeg banque yi deal day am seen biir. c'est arnaque bi fa lay jógee arnaque fa lay jógee illicite ba pare même actionnaires yi ñoo nekk si que Sénégal benn groupe moo ko tënk moo ko moo moo ŋànk économie hmm. ñoo nekk ci banques yi ñoo nekk ci compagnie d' assurance yi ñoo nekk fépp di toroxal nit ñi clients yi. Hmm. comme dañ ko delloo clients yi. beneen bi mooy recouvrement yi ni ñu koy defee doy na waar ñu ngi toroxal clients yi fekk la sa kër togal la di la saaga naan la yaat mais contrat bi bu ngeen koy signé banque ngeen waaw lu tax mu lay ñu lay fekk sa kër. wala fi di la saaga. Mhm. fekk mais ma ne la looloo dal nga may ma bi ma wax ci. benn benn benn benn waay liggéey kat la woon. bureau lañ ko fekk xas ko togal ko ba nga xam ne employé bi dafa xëy dàq ko mu ñàkk liggéeyam tey may wax ak yow ni attestation d' engagement yi non engagement yi tey benn waay xel ba dem na sax ngir loolu parce que moom dafa dem bëgg changer banque banque bu mu dem waaj na ko. yow de ndaw si sax laay wax ne ko yow de pour nga ñëw fii il faut nga am attestation de non engagement mooy lan mooy këyit bu wane ne ameloo dara gars yi waaw mu dem këram rek tapé benn kii ne man gars yi amelu ma leen dara bindu dama dem laaj waa ñaata laa leen amee mënu ko de amelu ma leen dara mu bind leet amelu ma leen dara bind si kaw attestation de non engagement yóbbu ko jox ko waa ndaw si ndaw si ne ko ah yow këyit bi kat yow waroo ko defal banque la ko war a defal mu ne ko ah mu ne ko ah mu ne ko comme delloo ma këyit mu ne ko noo bàyyi ko waa ji dellu dem ci banque pour mu defal ko ndekete woo na banque bee ne leen ah am na ku falsifier seen attestation d' engagement ne ñu jàpp dem tëji kaso moo tax it maa ngi félicité juge yi juge bu mu jotee ci dossier bi daf ko ne mais kii xamul xamul ñu attestation d' engagement dañ koy jaay dañ koy jëlee beneen banque xamul noonu lañ ko libéré waaye bu ñu ko libéré ba mu demee employé am ne ko yow dañ laa accusé si faux usage de faux te mënu xajatoo fi dem rek noonu lañ ko dàqee xam nga mu nekk ay problème yoo xam ne dafa dafa doy waar. Mhm, mhm. donc recouvrement yeeg attestation ñu ngi toroxal nit ñi. Mhm. mais beneen bu ma bëggoon wax mooy PEP bu muy wax sànq mooy plan épargne projet. mutuelle yi d'habitude lay am da ngay ñëw bëgg a jël plan ñu ne la da ngay bàyyi fi caution waaw gis nga mutuelle bu la lebal cinq euh, cinq cent mille. jàppal ni jël na cent mille yi ne la caution la du la jox cinq cent mille quatre cent mille la lay jox. nga war ko fay. ba pare 400 mille yooyu mu dagg ci ay frais de dossier muy 350 mille te yow projet 500 mille nga am waaw bu la joxee 350 mille nga dem nga war a fay cent mille ak ay intérêt ñëwagul waa mooy 100 mille bu mu waxoon dama la koy dencal épargne boobu mu waxoon dama la koy dencal du dara lu xaalis bi mu jël doole ko ci 250 mille mu yor. 100 mm-hmm. mille yooyu la jël doole ci 250 muy 350 mu jox la nga dem. Mm-hmm. fan lañ ko teg. léegi yow fi mu nekk nii léegi xaalis boobu caution boobu boo ci bëggee jotaat. tey suba tey suba benn waaye ne ma six ans jotul ci épargne moom ñi def rachat crédit moom day jaar noonu naxasaay parce que ci calculer lañ leen a ah dugal nañ ko ci wala lu soxna si wax nga xëy ñu ne la waa ah, dugal nañ ko ci salaire bi lekk ko ko bu yàgg te mënuñu ko génnee fenn mu nekk mbir moo xam ne jaay doole na am na benn question tam ci finance islamique bi de bu ñu laaj finance islamique dafa bokk suñu solution malheureusement Sénégal amuñu banque islamique bi fi ne tur la fi nekkee di bubboo diine te dëkk ci riba. ñoom tam dañuy def intérêt moo gën a bon yëpp. ah xam nga il faut ñu wax ko te dee. les finances la la banque islamique au Sénégal ne islamique na n'est islamique que de nom naa d'islamique que de nom tur bee fi ne waaw dugg fa xanaa da fa gis bisimilahi rahma amu fa. këyit yi doo fa gis dara dara bu la woon li banque islamique ba pare ñoo gën a bon yeneen banque xam nga hypocrite daanaka di mbubboo diine te yaa ngi ci riba bu xóot. man dem ci yenn banque classique yi moom ma gënal dem ci banque islamique moo tax dañoo war a taxawal fii finance islamique gis nga amul benn religion parce que diin dëkku mhm. diine la mhm. Sénégal amul benn diine Sénégal bu nangu riba donc finance islamique dem nañ ba nga xam ne pays développé yi sax moom la ñuy adopté fi mu toll nii ñun ñu ñuy proposé banque classique yi nga xam ne ñun ñuy toroxal su boobu amuñu fi benn moo tax ñu dañ ne ville religieuse yi mhm. fa lay tàmbalee Mbàkke Mbàkke mhm. Serigne Seck mhm. ñëpp pour que ville religieuse ñu commencé dàq leen fa mhm. parce que mënuñu wax ville religieuse dañ fay tere tux cigarette ba pare euh, riba ba di fa di fa jolli danañ leen fa dàq teg fa ay finance islamique ñu jël fa appui nekk ci de bi kees banque classique boo gis dañ leen di exiger ñu am finance islamique. dañ leen yeneen solution am na yeneen solution yi fi nekk. mais xam naa ni comme waxtu bee ñu dem rek mais euh, dinañ yeggali jotaay bi. <laughs> waaw war nañu wax ci détournement yu bëri quotité insaisissable yeeg ko détournement yi. xam naa ne dañ koy dañ koy daal di tënk rek ci beneen jotaay ñu fas yéene ko yeddale ndax tey daanaka xaaba xaw naa xaababal tuuti sax waaye xam naa ne technicien dinañ ma koo jégal ndax tey waxtaan wee toll noonu euh, loolu mooy li nga xamante fa la Euh, waa ligue consommateur yi ak ñeneen di ñaax sénégalais ñu bañ a toog seen kër jàpp ni problème bi actif dana ko lijjanti mënu koo lijjanti ñoom ñoo war a ñëw jàpp ci actif nañ jël mbir mi comme seen bi fu ñu woote ñu ñëw parce que toog sa kër fajul mbir bi di ñaan état bi tamit mu jël ay responsabilité am banque centrale na jël tamit ay responsabilité xam ne nit ñi nañ ci banque yi assemblée nationale bi ñu changé ko yóbbu fa ay membre actif ñu voté ay loi yoo xam ne day protéger clients yi te bu soobee yàlla jërëjëf jërëjëf di leen dégg assemblée nationale jërëjëf nit jóg ne banque yi ñu ngi toroxal nit ñi bu soobee yàlla jërëjëf yaakaar naa ni l'appel est entendu ah gars yi dégg nañ plaidoyer bi mbokkee xarit yi loolu mooy li nga xamante ni moom lañ ñu cëraloon ci waxtu bi daanaka matal nañ ko ba xaabaabal si sax leen gërëm bu baax ci ànd bi di gërëm bu baax moo mboolem ñi nga xamante ne ñooñ ci jàppale ba émission bi mën a yemb di leen jox dig daje beneen jotaay euh, balance jërë ngeen jëf wasalaam